jàmm mbokk yi ci la chaîne leader la Sen TV da leen jàmm seen émission waxtaane ko ñoo ngi leen di nuyu uh, ku ci nekk ci turam ak santam ñu ngi koy nuyu di leen sargal fu waay nekk nag uh, ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di nuyu ñëpp di ziar ñëpp uh, di baalu àq ñëpp niñ koy faral di defee kilifa diine aada cosaan réewum Sénégal ñu ngi nuyu kilifa yëpp yëpp yëpp yëpp macha allah di wax ni émission waxtaane ko doorati nañu andi la ci leen thème dooy doy waar ci début de semaine bi loo xam ne nag wax dëgg yàlla lan ci mën a wax bari na lool laal lu ne loolu la ñu daal di sóobu léegi di masaw ñëpp it ci coronavirus bi di ñaan yàlla nag 103 guérison yu ñu wax ne am nañ ko tey ñu wér yàlla na law guérison yi chaque jour yàlla nay ëpp nombre de contaminés yi gis nañu 64 la ñu am tey tey it gis nañu record sax def nañ ko ci test yi ak 1117 tests ñuy ñaan yàlla rek corona abal ñu nu mu gën a gaaw habitude yi yàqu nañ damay wax ne nag sénégalais yi wax dëgg yàlla ñu ngi def geste barrière yi gis nañ ni habitude yi changé na port de masque bi bari na loolee nag buñ ko defee ñu ngi koy def euh, daanaka mat na weer te gisuñu feebar bi dellu ginnaaw kon nag wax dëgg yàlla lan wax nag lan la ñu war na communauté bi moom dakk na dem xew bi dakk na nit ñaa ngi takk masque yi ñu ngi def lépp loo xam ne ñu ngi leen koy sant kon nag la des mooy wax dëgg yàlla feebar bu jugee fi abale fi dem yoonam génn ci àdduna war ngel këpp habitude yi tàmbaliwaat ku ci nekk la nga daan bëgg def di ko def ci sa teeyu bakkan ak sa sago nga continuer di ko def ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp njega maa ngi leen nuyu maa ngi lay fay euh, soxna Mantulaay euh, ci bu ndooy di la ziar bu baax a baax weekend bi neex na de nga fël non neex na moom parce que man sànq bi ma tasanteeg yow <laughs> laa la laa te yaa ma dàqale yow fi nga fël nii ah? yaay yaay sax mi ngi may seedeel fi nga tëll daal njaga nii daal baax na ah, ah. waaw waaw macha allah li si des ci korité gi bëreetul moo mhm. tax euh, il faut ñu euh, euh, dellu tuuti. Mhm. waajal ko waaw. Mhm. moo tax yaa ngi koy waajal ñoo ngi koy waajal ñoo ngi koy koy waajal waaw moom yaa ngi koy waajal. <laughs> jërëjëf man <laughs> maa ngi am mbégte saa su nekk bokk ak yow émission bi. macha allah di la jaale suñu waajur wi bi nga xam ne moom nga ñàkk fan yi muy sa mbokk di sa magu sa magu papa. Ah? sama rakku papa sa rakku papa wallaahi ñoo ngi la koy ñoo ngi ànd ak yow. tiis bi eh, sa bàjjen ñoo ngi ànd ak yow tiis bi macha allah di ñaan yàlla yàlla xare ko ci àjjana ya gën a ya gën a kawe yow da nga dañ la war di gis saa su nekk bu ñu la gisul da ñuy da ñuy da ñuy wéetal da ñuy wéetal macha allah euh, di nuyu Adja Ndaak Adja maa ngi lay siyaar bu baax a baax baax. ah Adja nag. sa <laughs> vert. ah sama yaay daal. daa mel ni. yaay xeexul dóorewul attewul xeex. man kay Adja nag war nañoo organiser xew yi nag organiser nañu <laughs> jumaa organiser nangam. mais yaay na ah. Côte d'Ivoire def. Macky Sall ko war a def. waaw 200 personnes. waaw ci xew maanaam laa la ca sa wax am na njëriñ yàlla na yàlla dégg gis <laughs> nga organisé ko ah ko yàlla dégg rek mantu xanaa rek eh, di nuyu eh, eh, wax dëgg yàlla sëñ Abo Mbacke mm-hmm. xalifa Serigne Fallou Mbacke dëgg yàlla mm-hmm. dama defal lu rëy bërki dem maa jëkk ba si yàgg mu yëkkati téléphone am woo ma ñaax ñu ñun ñëpp wane ni moo ñuy topp wane ni cofeel gu mu am tamit ci bugaan ndeysaan moom sëñ abo di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér waaye tamit waa kër sëñ Fallou waa kër sëñ Fallou ñu xam nga loolu dafa neex dafa neex ci ñu bu baax a baax wan cofee la mag président bu baax waaye di ko jaajëfalee appel boobu soxnaam euh, so madame Mbacke euh, bëgg Fallou ñoo ngi koy ziar bu baax a baax a baax Cheikh Naama Aydara ci Thiès ñoo ngi koy ziar bu baax euh, Mor Gueye Sopp Nabi international ñoo ngi lay ziar bu baax Serigne Medoune Sey borom tawfeex maa ngi lay nuyu di am mbégte ak bànneex di fegg ak yow saa su nekk ci émission bu mag bi di la jaale sa bàjjen benn bokk di ñaan yàlla atti ko ci yërmandem ci barke yonent bi du nuy njaga baax di ko ziar di wax ne sa wax bi nga wax léegi yàlla na ko yàlla dégg amiin amiin ñu am fi ay tiis yoo xam dafa dal suñu kaw village mhm. Alioune Sall nekk sët ci Seydi Hadj Malick di doomu euh, soxna Safiatou bu Seydi euh, Ahmed si bu Seydi Hadj Malick génn àddina ñu koy jaal Tiwaawan yëpp famille si yëpp famille kër Seydi Hadj yëpp di ñaan yàlla yàlla yërëm ko te yeexanu eh, di jaale sama yaay ajatu day sekk signature mhm. ndax maa jigéen yàlla na ko yàlla xare àjjana bu baax bu sekk ndax di jaale ki ne mbaay sama doom sama doomu cousine bu génn àddina ci Tiwaawan di xale ndaw bu yaru bu ma bëgg ma bàyyi xel di ñaan yàlla li ñu wax ci fan yu mu yi daal yàlla nañ seen jot ci barke Seydina Mohamed di nuyu suñu mbokk yi ñuy seetaan yëpp à travers le monde di leen wax jàmm ak salaam ci biir Sénégal. mu ngoog euh, di nuyu ñëpp di comme niñ ko defee rek euh, booba léegi taxaw ma ci plateau bi ngir mën a jaale di jaale nag ñëpp di jaajëfal ñëpp ci sama bàjjen boobu di famille cubbeen bi yëpp maa ngi leen koy jaale sama di ko jaale ñoom doon nekkal ñëpp Italie euh, kon nag benn sœur boobu la sama papa amoon moo tax metti na lool ci moom jamono ji maa ngi koy massawu ci baag borom maa ngi lay bu baax a baax a baax yàlla tasee ngir ma ndekk suñu borom di di di jaajëfal na ñëpp ñoo xam ne woo nañu ma ak ñëpp ñi nga xam ne bokk nañu Euh, di di jaajëfal bu baax di nag jaale sama sama doomu baay mami laay dafa ñàkk rakku jëkkëram ndaraw sugu ñàkk bu baax bokk nag ci ahlu bayti rasul di satu seydina limaamu alayhi salaam kon ndaraw sugu ñu ngi koy jaale tan seynu bu laay di ko jaale ahlu bayti yëpp ñoom limaamu caw sama xarit maa ngi koy jaale ñëpp waaye particulièrement di ko jaale sama rakk ju baax jooju mi laay yàlla na leen dëddoo jàmm tey nag ngeen baax barke ba di wax ni rek tey sama sama sama sama sama xarit bi sama rakk sax wax mu ñu jur ñun ñaar ñëpp moom ma daal di jaar ci tissu bu yanj bi euh, di di di euh, Assane global textile nekk fi nga xam ne moo di Parcelles Assainies côté église dama koy defal publicité nag ndax ndax mu gaaw a jar korité bi nag ku ñëw rek kuppati ko xam nga comme ni ma ko defee nii rek danga ciy am lu bari daal di mhm. fëlaale sànni ko kon Assane mi ngi noonu daw leen global textile textile numéro bi mooy 78 193 35 35 mangoogu ku ci bëgg rek maam Sidi madame sax xam naa naa ko ci indil benn bu baax mu ko pëti ko nag ci korite gi ah, sama rakk ji nag Assane Global Textile moo fay jaar ñu daal di xool suñu élément rek daal di ñëwaat léegi léegi soxna si naa ngi def. waaw maa ngi gërëm. Euh, doomu si maire bu gaañu la. Euh, affaire bi naa nu mu demee. affaire bi daal nekk na histoire bu yàgg yàgg yàgg yàgg toujours bu jot xeex na fekk jëkkëram ma ne koy rey lu ne mu def daal histoire bi oh, oh, keroog sax bu muy toj ci kaw. toj na fi ñetti yoon saa yu tojee ñu dem jëndiwaat ay million lu muy toj ay million toujours lay jar ñu ñu defaraat ba keroog mu xëy tojaat lépp mu ne jëkkëram fase na ko day dem yoonam ma ne sama nijaay nee na boobu sa maître naa toog fii léegi si nag fan yii yëpp muy def histoire rek ci kër gi di jaabante naan Ablaye dinaa ko defaral lu bon loo xam ne du ko fàtte ba xëy dee mën na ko loolu yëpp jaru ko toujours daal histoire rek ci kaw histoire ba si ak mu ne doom ji dinaa rey ami collègue rey samay rey mère bi rey Binta ñun ñu dem toxu ci foofu xale bi nag démb mu nettali ko xale yi xam nga xale rek dax na ba xale yi fi nekkoon ñu desoon ak sama yaay desoon na fi ñaari xale yu ndaw ñoom bi ñu ko gisee mu wàcc ci dañoo daw parce que saa yu nekk ci kër gi xale yi dañuy daw dañuy effacé kenn benn xale du nekk ci kër gi ñemewuñ ko ndax xadar yi mu yore bu ko defee jëkkëram ñaari yoon sama doom fii la ko naroon a soode keroog ba tëyeer ñooy jaar ci palanteer yi ca lu ñëw atte kook moom mu jël maafe bi mu ko bëggoon a sotti jël maafe ba sotti ko si yére xale bi noonu la ko mujjee def yére sama doom jooju ci laa ko jëlee yóbbu ko euh, dugaan mu nga fa féete am na fa weer ak lu teg ndax histoire am yi saa yi defee nii nag bu waa koñ bi bu mu dóoree maire bi fi dóor bon la fa dóoroon maire bi ma porté ko plainte yóbbu maire bi Youssou Mbargane mu entré fa deux jours bu moom waa koñ bi naan ko li nga def ñaaw li nga def ñaaw mooy du mujjee fenn damay dof dof lu ba ñu ne damaa dof te fekk dara jotuma kër gi en tant que defuñu ko sama tur jàmm du am. ok yéen yéen fekkee ngeen bu muy euh, sotti ndox boobu temps non fekkee wu ma damaa demoon jënd garabu meer bi jënd garabu meer bi laa doon jënd. léegi si nag bi ma koy jëndi nag sama nijaay laa àndal mu jënd ko ma topp yoon bi ñëw bi ma ñëwee ma tase beneen maire fi mu ne ma seen kër di laa jógee waaye sa jabar ja de euh, ku yàkkamti la ndax nee na ma day dem tëngëj ba frappé na buntu kër gi ma na ko ana maire bi ma maire nelaw ma ne ko nelaw mu ne ma mu ne ko anaami kol mu ko am ko xam fu mu jëm noonu ma daa di ñëw ma ramee bi ñu ànd ba ci buntu kër gi ma fëgg fëgg fëgg sone sone sone ubbiwul ma ne mère bul dem dimbal ma lii nekkatul neenu bu neen ndax sama yaay bu ma sone woon day daal di ñëw ubbi buntu bi noonu ñu fëgg ba sonné ma oo maçon yi ñoo dajjal ma buntu garage bi ci lañ duggee ñu ñëw ma wër a wër maire bi fii gisuma ko ma gis darapam bi fi ñu ko sottee ndox ci salle bi ba darab yi potooy ci la dawee bi mu fekk ko ci duus bi jël kiiwu la baa boobu loolu tóoj la baa boobu moom nag la ko dóor nag ci baat bi daal deret bi mu sotti ba fa la dee ak ndox mu tàng mu ngi ko sotti dënn bi nii ñor na ak tànk yi ak kanam gi nii yëpp ñor na lépp ñor na moom daaw bi sa goro boobu nu mu tudd Suwaadu Njaay la tudd dëkk Dugaar dugaar la màggee mu sëy si fii cité enseignant bu Kounoun. seen mbokk la. waaw suñu mbokk la. yaay bi mère bi nu mu tudd. Khady Diouf mais yaa amul lañ ko gën a xamee. moom ba ñaar ñaata at la am. war na am ay juróom-ñaar fukki at yu màggee tuuti rek. merci waay Sigid Ndigal ah. métti na lool. ngi ki nga xam ni it faatu na Xadi Diouf di ñaan yàlla suñu borom euh, daal koy xare aljana yu gën kawe euh, di jaale ay mbokkam yépp euh, lañ ca mën a wax nag mu ngoo ñoo ko suivre ndoo mën ngeen woote ci téléphone yooyu ñu affiché ngeen bës 2 ngeen bës 2 pour yéen nga xam ne yéen nekk ca bitim réew mën ngeen woote ci numéro fixe boobee duñu wax ni nag peut-être tey teg nañ li émission tës mais gis nañ ay message yoo xam ne ay dëkkandoo lañ ay mbokk yoo xam ne ñooñ ci yokkal sax wax ñu ne moom soxna si nga xam ni moom moo faat goroom goro bi en fait maamam la ndax maamam ak ki mu faat ñoo bokk ndey ak baay moom nijaayam ci boppam la ñu ko may mère bi nag benn doom bu góor boobu rek la am te mu nga Italie yàgg na ko nag ni ko may naa la sa baat génnal sama kër parce que dafa njëkk dóor mère bi ba damm temps ba damm loxo bi ñu porte ko plainte jàppoon ko mu pare ñëwaat ci kër gi jëkkër ji ni ko génnal mu ne moom du génn kër gi problème yi nag foofu la commencé foofu la de ñu bëri nag ñu ngi naan jëkkër ji peut-être euh, ba moo léger ñi ngi naan leen nag leen waaye dañ naan ndogal bu waree am tamit day am waaye nag yenn saa yi naan lii raam koy dogale balaa mu yegg ca ñag ba te lii nag la ma gëm mooy yaay dañu koo dogale woon waaw xam nga euh, mantu dafa am négligence bu rëy rëy bu ci am ndax jigéen buñ la mayee borom kër nga nekk ci kër di sëy soo fay ñaan njaboot ku la wéttali ku la jàppale ak ku la secondé moo taxoon ñu koy ñaan su la yàlla mayee doom mu indi jabar nga dem jëli sa mbokk indi ci biir kër gi nekk ak moom muy xaleel ngay mag am na comportement boo am sa diggante mhm. ki indi di sa borom kër war na veiller ci sa comportement sa diggante ak yaayam gis nga loolu lu am solo la. Mhm. Euh, dafa bari ñoo xam dañu am négligence. Mhm. du seetlu seen jabar naka lay tontoo seen yaay. Mhm. wala bu ñu toogee xool bi mu koy xool wala bu ko seen yaay wanee ginnaaw regard bi muy sànni am na solo. parce que xale yi dañu bari capacité trop. yooyu jar na seetlu. parce mag tam war na nekk magum lëndëm moo xam ni. soo làmbee dajoo may ma daj sama bopp. man mënumaa sonn jur sama doom. mu takk jabar indi ci ma xam fi ma war a yem ku ne xam noo war a ànd ak moom mu wut fu ma dem. Mhm. bu fekkente ne moom mënu ko fase mhm. ma génn kër gi dem samay bokk. Mhm. moom am na famille. am na fu mën a dëkk. soo ko amul sax te am nit ku baax koo xam mën nga faa dem toog fa. parce que loo loo looy looy xaar rek na ànd ak jàmm ak nga tal ko. parce que booy ñaan goro nga tal ko fekke moo ci am solo. mais goro bu ñëw saaf suuf teg te bari ci maire yoo xam ne ñi ngi. dundu ñi ngi dundu loo xam ne ci biir kër ci tontu. ñàkk kersa ci ci bari na ci maire yoo xam ne la ñu dund mënuñu ko nettali. waaw maire yi sax mën nañu sikk waaye boo ko xoolee ci yaay ji la jur suba gu yeewoo def loolu naqari te doo dem. Mhm. bis bu la sa yaay wax loolu la naqari teg la loo àttanu sax te doo ko bàyyi waaye nag tontu bu sens. tontu bu sens ku ko tontu sa yaay di ko tontu goro. jikko du mhm. gën a yaan. Mhm. boo demee day toog ci buntu bi la maa ngi lay nekk. boo ñëwee di taam taamee sa goro ay fan lay xaar. boo toogee ñëw mun la maa ngi ñëw de. boo toogee boo ko naan lan am na tontu yoo xam sax saaga la. baa dóor la. te loolu war nañ ko surveiller waruloo ko may sax sa goro bi sa doom indi ci kër gi. waaw yaa nay fekk rek mu mu am ku am yar. Mhm. am teggin ñu yar ko mu xam lan mooy respect. Mhm. parce que ki fonkul yaayam ba bu ko tuddee bu yaayam noppiwul moom du noppi fu mu dem loolu la fa yóbbu. Mhm. mais man mii sa yaayu jëkkër nag maa ko du nangu. man mi sonn jur sama doom. maa dul séq yow loolu benn ñaareel ba su ma xamee lii lii raam ci ñag bi li jëm te mënalu ma la dara xëy na nga ëpp ma doole. wala nga mën ma bett gaañ ma nga génn. wuti foo dem wala sa jëkkër wuti fu mu la yóbbu. ndax sooy wax goro day fekk mu lay taam-taamee di la la ndékki noppal la yërmande fonk la jox la sa cër mhm. mais xale yi respecté du sax seen yaay leen jur mhm. parce yaruñu leen ci yaay di wax nga ni pat ak nga sëgg mhm. xale yi duñ def loolu bu sa yaay tàmbalee sa wax bi yaa koy àggale bu sa yaay noppiwul doo noppi su la neexee nga tontu ko tontu bu sens boo xam ne day dugg ci néeg sax am gàcce ba du mën a lekk te loolu nag dafa bokk ci éducation yi ñu war suñu ay njaboot yi. surtout njaboot yi jigéen ñi te góor ñi gën a redoubler de vigilance. su sa yaay nekkee ak sa jabar dee ko seetlu. dee ko seetlu am na ñoo xam ne xamuñu dara. du ñu xool sa bët bu mu xool seen yaay wala des mu mere seen yaay ci biir kër gi. wala mu am problème seen jëkkër defe ne seen yaay la wala moo ko influencé alors que moom yoonam du ci nekk mën na am sa du yëg moo xew. léegi góor ñi parce que bu ñu lay indil xale da nga ko yar bu njëkk soo gisaan ñu daan dëkkal goro ak goroom pour nga mottali yaram bu nu toog nga jàngal togg jàngalal bu defee du naan nga ne ah lii du nii de su waxee jëkkëram du nii nga woote ne man li ma daj doom doo ko daj man ba may sëy aw ma lii te xale yi léegi neex la mhm. fekk nañ chambre à coucher ak salle de bain yi bagage yi tege soq wala ñu defuñu dara nekk ak sa goro ngeen di wétali konte di jàppalante loolu foog naa ne amul dara lu ci metti soo amee yar am teggin xam ciru jur nga jox ko ko mais lii ma gis nii man ba ma juddoo ba tey mosuma ko gis metti na de sotti sa goro ndox mu tàng mu ndaw nga ray ko teg ci mu daw nga jël bopp bi dóor ci lavabo man mosuma gis bii gis naa bu ne waaye bii mosuma ko gis ah bu yàggee de mu doon psychopathe jërëjëf Mantoulaye Mantu euh, euh, est-ce que xam nga ne réew mi mënuñoo atte mënuñoo atte xuloo xeex la ñu mën a atte hmm. histoire bi amoon na lu yàgg waaye fulla fulla fulla ak fayda da koo lalul woon mhm. ku joxoñ sa ndey mbaj sa ndey ba max sa ndey nga bàyyi ko ci sa kër muy sa jabar ñàkk fullee jëkkër da cee am mhm. pire xanaa xamoo ni jigéen am na noo koy fasee du génn kër gi mhm. na comportement sax boo xam ne yow yow boo ko wanee sa jabar boo ko fasee sax boo moytul yow yaay génn kër gi moom du génn kër gi parce que ci comportement tamit da ciy joué waaye am na ñoo xam ne tey ji nii bu nu ñu xoolee seen jabar ni sa sa jabar ne bu ma la fekk sax seen jabar dañuy daal di dem wuti ji wàllu parce que xam nañu ne fulla la ak fayda fulla ak fayda jëkkër dafa dafa dafa dafa des demee ni ci demee ci ci li ñu wan mhm. mais tamit néewi mbokk tamit dama ko cee dama ko see seetlu néewu mbokk néewu mbokk côté mère bi néewu ci côté mère bi parce que tey jii nii mère bi ak nu ma nu ma nu ma nu ma lu mu lu ma mënoon a am mooy bu demee ba ndeyam ak euh, euh, parce que yaayam la rey maamam maamam la rey mhm. parce que bu ñu demee ba xam ne deret la mbokki deret la coow li di am ci kër ana ay mbokk yoo xam ne waroon nañoo toog ñu waxtaane ko parce que nag gis nga mbokk goo gis ci àdduna am na kenn koo xam ne lu mu pànk pànk pànk pànk pànk am na kenn kum ci ragal wala kenn kum ci rus mhm, mhm. mais lu ñu waroon a toogee la avant mu yegg si avant muy yegg si fii ñaareel bi tamit moom mooy seddu nañ si ni ku ndaw si ku iñaan la ku soxor la lu mu préparé la. en la boo xam ne da ko enal da koo enal. da koo enal waaw da koo enal da koo da koo enal goro bi. parce que damay wax ni ñaar yi ku ko préparé ngay baxal ngay baxal nga nga jël nga tànk ndox te xalaatoo yéene ko rey doomu aadama jamono jooju boo amee as tuutum xel. parce que dafa am temps bu bu bu la ñu la may boo xam ne war nga war nga cee mën a xalaat. xalaatu rëccu rëccu. imaginer jëlub cin tànk ndox teg gaz. wut almet taal toog tuuti di xaar mu bax jamono jooju ku iñaanul am na rëcc rëcc boo xam ne war na caa mhm, a dem mhm. ku iñaanul waaye boo iñaanee nag te yor xolu xeer mooy lu gaz bi tàq tàq tàq da koy xeet kon lu mu waajal la te tayeef la ko te tayeef la reyee maire bi ñaareel bi moom mooy xanaa xamoo ni coow yi nga xam ne tey moom moo moom moo xew si soxna si Njaay xew na ci kër yu baree baree baree bare bi ñii duma nañ leen ñii ay goro yu gore yu gore yu gore yu yoo xam ni bañ a tasum mbokk bokk na ci am na tamit yoo xam ne tamit jigéen ñi muy soxna yi dañoo jàpp ni li leen manqué ci kër gi seen goro bee leen ko teg ba mhm. fa bari jigéen ñoo xam ni li leen manqué ci kër gi seen goro yi seen jàpp nañ ni seen goro yi moo ko teg mhm, mhm. te ñaareel bi mooy ay yàqkat lañu am na koo xam ni lu mu la muñal muñ la muñal muñal muñal muñal ajaa ndaag du ñu nangu nga nga yàq sa alalu seen seen seen alalu doom Mm-hmm. buñ ko naree ñu dox ñu def stop stop boobu nag nga xam ni goro yi dañuy stopé lenn ci seen goro yu jigéen yi seen jabaru seen jabaru doom yi seen jabaru doom yi tamit duñ ko nangu mm-hmm. en day daal di dugg foofu waaye dugg sama sëy merci bras de fer ah? ngi ci jàpp merci bras de fer tamit day daal di dugg foofu parce que tey ji nii lu la sa jëkkër nopp nopp nopp nopp nopp damay wax ni goro yi cër rek la ñu soxla mm-hmm. ci ñi xàmmee nag goro yi xàmmee cër képp la ñu soxla mooy booy dem tàggoo yenn saa yi sax xamal ne doma daa ngay togg waaye bu ñëwal ni ko ah, ah, tante loo bëgg mu ne la maafe parfois sa mu ne la ah loo togg baax na nga dem togg sa doma daa mais jigéen ñu mooy génération sous le bii bi dañoo mën a defante <laughs> dégg nga seen première seen première seen première wujju ci kër gi moom mooy bu ñu bu ñu yegsee muy seen goro ñaareel bi sax boo leen dee doxaani ca njabat ca ca labat ga lañ naan la man de ana sa ndey boo nee génn am na ñun alhamdulilah kenn du ma xatal ci kër gi mhm. soxla wuñu goro goro buy dund soxla wuñu goro bu góor buy dund soxla goro bu jigéen buy dund jigéen ñi ñoo bëggatul ku leen surveiller merci parce que lañu bëgg merci di nga ku amul woon mais nag boo ko waat ca njëlbéen ga mooy amuñu woon kilifa ci ci biir kër gi seen biir kër mooy seen yaay yu acca ñu dem ñu jël maam Sidi jël téléphone bi allo acca dem na acca seen yaay seen yaay seen yaay yiliful leen woon boo xoolee mbedd mi moo leen yilifoon ku ku la sa yaay yiliful sa baay yilifu la say mag yilifu la say mbokk yilifuñ la boo sëyee tamit ku la bëgg a wax toogal fii dalay xatal loolay indi problème bi ku la bëgg a wax ni soleel nii dalay dalay xatal ku la bëgg a wax ni defeel nii dalay xatal moo tax souvent que bu ñu amul kilifa démb ñoo am kilifa tey te ku daan xuloog sa yaay démb noo mën a def rey sa goro tey mhm. ku daan saaga sa yaay démb noo mën a def dóor sa goro tey ku daan ku daan werenteeg sa sa sa sa goro sa yaay démb noo mën a def werenteeg sa goro tey parce que respecté woo ko allo allo aleykum salaam wa rahmatullah ngi sant bu baax alhamdulilah yaa ngi sant TV yaa ngi sant bu baax alhamdulilah. maa ngi yaa ngi en direct. man laay. ñu ngi delloo ziar bi bu wér Pape. Euh, Saour Seck Gaawaan. Saour Seck Gaawaan ñu ngi lay nuyu bu baax Papa. Gaawaan bokkut ak gàdd Gaawaan wala. Ah, ah, ah xam naa fa de sama tante dëkkoon na fa. gàdd gaawaan gàdd gaawaan ba caytu dëkku Cheikh Anta Diop. mu ngoogu mu ngoogu. ndeysaan dëkku maam Cheikh Anta borom gaawaan ndeysaan. dëkku Cheikh Amadou Bamba. ndeysaan maam Cheikh Anta Mbacke. ñu di eh, leen baax a baax ak yeneen plateau yi ngeen fi daan def yëpp daal vraiment émission yi ngeen di def mos naa fi woote benn jour. ci mhm. jamonoy masque yi. Mhm, mhm, donc village yi maanaam amuñu ay. naa amuñu masque ak pharmacie. fàttali ko bu baax bon man nag dama leen suivre parce que euh, rawatina surtout yéen ñaar góor Mandoulaye. dafa am lu may jàngat yéen parce que mooy taw bi nga xam ne am nañu yéen te du ngeen offensé kenn quoi vraiment. Mhm, merci beaucoup damay gis souvent ay ay ay émissions yoo xam ni ñu dañ ciy woote mais dañuy tontonte ak ñoom. Mhm. mais damay gis ni ngeen léeg-léeg nit woote sax wax loo xam ni du lu leen neex mais da ngeen ko da ngeen da ngeen da ngeen xam ne daal lu war la parce que ku ko xaj bawlo loolu la olofoon. Mhm. donc macha allah yàlla na leen yàlla dafa jàmm ndam. jaajëf. defoon nañu sutura soxnaam daal moom it vraiment ku rafet ay wax la. ndeysaan wallaay donc man li ma ci bëggoon duggee ci thème bi rek mooy. Mhm. Euh, li olof li mhm. ci man sama gis-gis. Mhm. parce que man soxna lu mën a bëgg-bëgg ak loo rafet rafet ak noo mënti mel. dama jàpp ni coono bi su ma yaay amoon ci man mënatoo dab. mënatoo am bànneex bu ëpp maanaam mënatoo ma defal bànneex bu ëpp. mënta ne sama yaay amoon ci man man. mënta ne. parce que nag neuf mois li wolof yor hmm. ko yoraat na encore pendant dix dix ans douze bi nga xam moom la moom la. Hmm. boo feebaree du nelaw sooy jooy du nelaw. Hmm. lu mën di am même boo demee ba nekk mag sax ba masoor soo génnatee en tant que déglu du am jàmm. cay yaay. kon donc jàpp naa ni vraiment yaay moom amul bu ñu ko war a mën a jëndee. jërëjëf lii sëñ góor a wax seetaan am na ci famille bi. Mm-hmm. parce que dañu war di arranger avant ñuy àtte. Mm-hmm. ndax soo parjuri lii mujj mooy àtte. Mm-hmm. kon donc li nga xam ne moom daal man li ma fi ma ko yóbbu man lépp. man ci jëkkër ji laa ko teg. te nit ma ma la wàcc nga ne du génn sama kër. Mhm. kooku nag jàpp naa ni góor a wax am na ci parce que wàcc ba moo amul fulla amul fayda. Mhm. ci kees mooy soxna daal wax na ko yaay ji ay famille seetaan nañ ko. donc si nga xam ne mooy mooy jigéenu waa te nga mu nekk ci kër moom ki doon noonu. Mhm. itam jàpp naa ni amoon na part de responsabilité moom war na mën a rawale yaayam. wallaay dëgg la. mais daal wax dëgg yàlla maa ngi dellu ñaaxaat askan wi. Mhm. ak ñi nga xam ne loolu daal ku mhm. te yu mel ni yàlla si jóge mhm. waaye nit ñi tam war nañu vraiment vigilant ci yu mel daal. di di gaaw di wax daal di gaaw di intervenir bàyyi ba li olof yax caan dem. nga toog ca wati bay loolu dafa yaatu Sénégal te loolu nag. war nañu ko bàyyi. donc maa ngi bu baax a baax nag. ci woote bi donte ni xañ na kàddu gi demewul noonu ndax man. ah rafet na ah c'est que rafet na important dëgg dëgg dëgg mooy di seetaan jàng ci yéen. macha allah jërëjëf yu bari yéen jàngal euh, doomu yi même jour bi ngeen fi defee ci projet bu soxna soosu nga xam ne borom këram dafa ko takkoon te gaañ ci paa mm. bi. dugg naa ba sonn ne mënuma dugg quoi. waaw parfois ligne bi mooy donc ay thèmes am solo daal ngeen di joxe mais. Mm-hmm. xale yi tam nañ ci tiré nañ ci bàyyi bàyyi nañ ci jàng daal ay leçons ba ci man ñi aussi dañuy mën a jàng daal. ndeysaan bon xëy na temps bi ma jël bari na nag mais maa ngi déglu bu baax a baax lu ci dëgg nag na ngeen ma ko baal ak askan bi seetaan mais lu baax rek laa ci bëggoon daal. déedéet sekk yow maanaam Abdoulaye jërëjëf. sekk yow pertinence rek euh, nga nga ràññee ci yow baax a baax a baax a baax. pertinence rek nga ràññee ci yow yàlla defal ndam ak sutura. te yàlla defal leen xéewal. Euh, waaw. waaw kañ jaajëf Seck pertinence rek la ñu ràññee ci moom ndax dafa commencé ci masque yi rek ma xam ni moo doon wax di nuyu waa gaawaan gi nga dëkk yépp ñu ngi leen di nuyu foofu ca booru Bambey ñu ngi fay nuyu ñëpp Seck wax dëgg yàlla pertinence bi bu am solo bu am solo thème am solo ngay aborder mm-hmm. mm-hmm. euh, Mantou borom kër yi borom kër yi borom kër nañuy seetlu borom kër yi nañuy ràññee borom kër nañuy jël seeni bët di xool ci njaboot gi gis nga euh, euh, démb démb baax na de mm-hmm. boolu bool bool bu mag boobu ñu daan teg ci ëtt bi. Mhm. di lekk ah ñëpp sukk wër ko ñëpp ko. Mhm. borom kër gi ci laay xam ci la daan ràññee ñi xuloo. Mhm. ñi merente. waaw ah. ñu jël ligne bi voilà <laughs> allo. <laughs> baax na allo allo. allo. allo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va. ça va bien. alhamdulilah. seen TV laa bëggoon woote de. ah. yaa ngi seen TV. ah direct si direct. ah. si direct bi direct bi. ci direct bi yaa ngi en direct. Ah. yaa ngi en direct waxtaane ko. allo ah, waaw. allo. waaw man it dama doon joxe sama opinion. aca yow rek déglu. aca dafa mel dafa dem de. dafay dafa am dafa da nga wax thème lu am solo njëkk da nga laal fu am solo muy bu njëkkoon euh, bu ñu daan bokk bool bi. di ko sukk di ko wër gis nga yu bari yëpp yaay amul woon fit yi sax amut woon déedéet ndax euh, boobu wujj yaay sax dafa daan am fitu corriger doomu wujjam xanaa xamoo ni euh, euh, dëpp ndëpp këpp këpp këpp tam xarit mhm. aada gu rafet la du ay ñaande jàngale àdduna ñu jël bi <laughs> ñoom émission bi allo allo allo salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. naka ngeen def. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. Sen TV ah. yaa ngi Sen TV. waaw waaw direct bi laa bëggoon. acca yaa ngi en direct. Eh, waaw waaw salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. soxna Mantoulaye maa ngi leen di ziar bu baax a baax. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. di nuyu tata boobu toog ak sama càmmiñ boobu. tàndaak ak njaga. Mhm. Eh, eh, maa ngi woote lu fi Kaolack. waaw Kaolack nuyul ñu leen waaye. waaw dinañ ko bu bëree bëri di rafetlu thème bi. vraiment e am e e mm, na solo lool. merci moom yeete moom ci ngeen dëkk chaque jour. jaajëf merci xanaa kay nit ñi ñoo nekk yàq sago rek. Mm. mais société bi léegi moom daanaka mi ngi noonu daal. baax na xam naa ko yóbbu rek tiit de. vraiment parce que chaque jour ñu ngi dégg ay mbiri vraiment eh, doo xamati sax fan ngay taxawee. doo xam. maman boobu yaay jooju ju def noonu yàlla ko yàlla yërëm. amiin amiin mais vraiment. partager responsabilité daal mu ngi noonu. Hmm, parce que normalement man je me dis que sax sëyu mbokk yi léegi ñoo gën a bari problème léegi. Hmm. xoolal bëgg lu rafet bëgg sa doom am rafet nga dem dugal ko ci nijaayam doomu nijaayam. waaw kër nijaayam walla kër tàntaam. waaw mais vraiment société bi daal man li ma seetlu temps yi hmm. problème yooyu daal mi ngi jóge ci famille yooyu rek. baax na daanaka sëyu mbokk sax moo tane léegi. parce que li la mbokk mun a muñal wala li la jàmbur mun a muñal muñalatu la ko léegi. vraiment ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax thème bi moom yaatu na kenn mënu ci wax. boo ci doon wax kii ba suba itam du jeex. du jeex euh, mais seen rôle ci ngeen def yéen a koy def tous les jours. ndeysaan vraiment di leen jaajëfal rek. Euh, waaw mais ñu delluwaat ci suñu yaay yi ak suñu mama yi maam yi ni ñu séyee. Mm-hmm. waaw vraiment affaire yi dafa rafetoon ñu jàngal ñu rafet. Mm-hmm. mais nañu indiwaat valeur yooyu teg ko suñu kanam. Mhm. di ko xëyee di ko yendu mhm. gontoo mhm. su ko defee rek même suñu yaay yi nga xamante ne suñu waajur yi fi nekkatul sax. suñu xel saa su dafa war di dem ci ñoom. suñu leen di xalaat ci niñ daan téye rek. maa ngi jégalu bu baax a baax ñu gàttal foofu ndax ligne bi dafa saturé ndeysaan wax jërëjëf vraiment ñu ngi leen di jaajëfal encore une fois jaajëf euh, di nuyu ñëpp waaye vraiment ndeysaan nuyu nu waa Kaolack ah, yëpp dinañ ko dégg dinañ ko dégg merci Mantoulaye jaajëf ñu ngi nuyu waa Kaolack yëpp yaay rapidement balaa xam naa lim bi mais euh, bu njëkk ba sëy bu njëkk ba yaay lii daanoo ko dégg soode yi di nuyu waale ndey sëf mbay sama jàmm ba ca Kaolack di ñu seetaan fu mu toll mais xam nga mantu àdduna bi dafa yàqu mhm. gis nga ñi war di wax waxatuñu mhm. ñu ñi am fit rek ñooy jël téléphone bi allo salaamaaleykum aleykum salaam euh, dafa jaawaale xam nga <laughs> ñu jëlaat. waaw ayca ayca ayca li allo ñoom émission bi na ay borom xam ñu leen sant di la ñu nag ko bokk nag. nattu la toog ci télévision di wax. Mm-hmm. ne du gën fee baax du gën a xam. Mm-hmm. mais njaga bari ñu am fit toog ci lu toll ni télévision am benn auditoire bu mag bu lay seetaan nga am fitu wax ni yow miy jigéen am fitu wax ne am na yoo xam ne xewi na amatul. wallaay wallaay wallaay wallaay loolu nag. li yàq àdduna bi ci la bokk parce que am na ñoo xam ni ki ñu sopp rek la ñuy déglu. Mm-hmm. ci sëñ Cheikh Tidiane Sy. allo allo oui. waaw soxna ñoo ngi lay euh, ñu ngi sant ba alhamdulilah. waaw ci émission bi. yow rek la déglu. waaw. na bàyyi télé bi rek nga wàññi télé bi rek yow rek la déglu. sant alhamdulilah. ñu sant bu baax. am jaajëf merci beaucoup. allo. Euh, télé bi lay dégloo maam Sidi ngeen baal ñu da di dégloo ci téléphone bi te bañ di dégloo télévision bi sinon duñu duñu déggante ñu jëlaat keneen am na ko nekkaat euh, ci ligne bi allo allo. salaamaaleykum. aleykum salaam wa foo ba amee seen TV. yaa ngi seen TV papa. waaw mais duggoon naa léegi génnaat. da nga duggoon génnaat. bisimilah waaw loolu duggaat ñu ne ma seen TV la ma ne. waa Ndiaga. waaw. <laughs> ñu ngi lay ziar kooku du waaw euh, déedéet mantulaay la soxna mantulaay la. mantulaay damaa juum. dafa jaaw moo ñaaw Sofia moo ñaaw. mantulaay tudd mantulaay mantulaay revue de presse yow damaa juum damaa jaawale. papa yow daal am say jabar te xàmmee woo ci kenn yow tamit. waay damaa juum xam nga ne damay bëgg a naax. ñun nag dañuy tekki sëy yi de. <laughs> waaw. ñun dañuy dañuy tekki sëy bi de ah, léegi. xam nga tax tiit. Ah. dafa am xale bu réew bu song Sénégal. Ah. mooy corona ista bugul mag moo tax ma tiit. walaay dëgg la bul tiit bul tiit. di nga bul tiit li maa leen di nuyu maa leen di nuyu. waaw ñu lay fay maam. man damaa sax xaw a jaaxle ci jamono ndax fekk naa. Mhm. fekk naa ba nga xamee ne xal bu jigéen dañ koy wat. Mhm. di ko wat ba di ko wat ba di ko sëqal daf ko sëqaloo di ko. Mhm. di ko maye. fekk naa ko temps bi mayeewu ko waaye kon dinañ ci gudd lu bari. nga gis ndeysaan. mais dama bëgg wax ne xale jigéen léegi bëggatuñu goro goro lañ bëggatuñ. dëgg la dëgg la xale yu góor itam amatuñu fulla amatuñu fayda. dëgg la dëgg la maa ngi jégalu ci waxin wi. dëgg la dëgg rek nga wax. man maa ngi maa ngi goro fii ci sama kër. Mhm. samay goro ngi ñuy toog. Mhm. man goro bu ma bu ma respecté respecté woo sa yaay jëkkër doo fa maa la wax loolu dëgg mooy dëgg de. te am na ñoo xam ne ne seen jëkkër seen yaay jëkkër taxul ñu takk leen ñoom. Mm-hmm. dañ la war a yóbbu appartement. Mm-hmm. waaye nit bu fekkee ne da ngaa bëgg sa jabar bañ bay bay fóotal sa bopp say say kiloot ak say yëf fanaanukaay ñëwoo ko fóotal sa ah. soxna. Ah. Ah. boo ñëw ñëwoo jël. añ ñoo wax wax soxla indil maa yaa sa bopp. Ah. tàngalal sa ko tàngalal dañ laa may ci jàkka ja nga demaat hmm. góor gu am fulla ñeme nañ laa wax ne monogami benn jabar ngay takk ñeme nga ko. <laughs> ah man raay maam yéen naroo naroo yem ci man de yéen rek ñemee dama góor ak góor ñu ñakk fayda yi nga xam ne <laughs> nga dem ca mairie ba ñu may la jabar ca ca ca jàkka ji nga am droit ñeent ak taara ba muy am. Mm-hmm. ñu ne la monogamie ngay dem nga naan waaw na na sàgg na ab baaleen. si sax la ñuy wax sax waaw maam mi maam ah? mi xam naa ne ku ñu bari. walaay walaay maam wax nga dëgg maam ku bari wujju laa. dégg nga toogal. ni ma ne ñàkk fayda mi ngi toll ci yaay ni mu sonne nga defal ko saa mu mu defal ko néeg ak li mu sonn. sa jabar naan maire bi day noos ak maire bi lu mu daj àdduna maire bi daa war a noos. war a noos war a noos. Mhm. tey ji moom dafa ëpp kooku criminel la waxuma rey waaye ma ne am na gis naa jigéen joo xam ne nee na goro bu baaxee dénkal suuf bu bonee dénkal suuf. Mhm. Mhm. am na jigéen wax. waaw surtout ñi seen jëkkër dem Italie wala ñu dem France. dañoo siis ci kër ba am bu ñu sax ñoom rek fa nekk. wallaay dëgg la. <laughs> gis gis nga gis nga gis nga bañ daa wax da takk mbokk. Mm-hmm. dootu léegi. dëgg la mm-hmm. léegi léegi sa jër bu demee Italie loo koy wax li demee wax bu nekk benn nopp balaa ñëw sa génn sa yaay. Mm-hmm. gi yàlla dafa garaaw waxuma jël waaye ku respecté wul sa yaay doo respecté yaay keneen. kese kese kese loolooy wax ci. moo tax soxna dañ koy tànn dañ koy xool. Mm-hmm. kenn du gis loo jël rek loo fa jël boo demee mair bi protesté boo demee sax maire bee ko wuti. Mm-hmm. ma ne boo demee maire bee ko wuti. waaw waaw dem moo dox sëy bi. soo demee ku góor sax bugguloon. boo demee de. kon nag jigéen ñi nañu wàññi fonk seen goro yi. Mm-hmm. fonk seen yaay jëkkër fonk seen yaay waaye ku fonk sa yaay. doo fonk yaay jëkkër. waaye waat naa ci yàlla ne. képp koo xam ne loo jël yal ko sa jëkkër loo jël yëkkal sa goro sa sa doom yalu saako ceeb lay jëkkee doo am doom joy wax dégg ñaan déglul mukk ci àdduna. yàgg maa ngi gërëm maa leen di sant. maam tur bi maam tur bi Baye Mor Diagne ginnaaw raay. Baye Mor Diagne ginnaaw raay xammewu ma ko. <laughs> Baye Mor dafa soj nag tey daa soj nag tey maam tey dafa duggee aal sax. maam tey aal la duggee ba may jaawalee Safia <laughs> sama sama chéri boobu. maa ngi lay nuyu waa ginnaaw raay yëpp ñu ngi lay nuyu Baye rajo bi ak télé bi yëpp la yemale day woote tout le temps. waa xam nga mantu addina bi dafa yàqu. la woon dafa won ni. li góor gi wax dafa am solo. kuy def koo jor jël loo ca jur jël. jigéen dañu koy tànn. Mm-hmm. boo ko tànnee mu jural la doom bu nu yar te ban daan jëli mbokk di ko indi pour mu defar kër la bu jàmbur ne xool ca mbokk ma mën laa fonk léegi mbokk mi takk indi ko ci kër gi mu gën a bon moo gën a yées waaw yéen saa yi nga bañ nit ni sama doom du ko takk mu ñëw gën sa mbokk mi nga takk indi ko ci kër gi la te xale yi dañu mën a toppandoo kii sa mbokk wala ki njëkk ci kër gi bu ñëwee dem la nañ jël ki allo allo allo allo oui salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah man laay Malick Sow maa duggoon léegi waaw Saourou Seck bi nekk gaawaan ah waaw waa gaawaan bi Saourou Seck benn tuuti lu ci bëggoon dolli rek ma fàtte ko mooy dama amoon sama benn xarit mhm. dans les années quatre vingt wala soixante dix mhm. yàlla dafa dogal mu amoon soxna soo xam ne moo dàqoon ci ci koñ ba macha allah ndeysaan macha allah eh, mais kooku te ji tax ba jabaram reyu ko loolu moom luñ ma natt li ndax kooku suma moo ma magoon sax mais suma xarit la woon. Mm-hmm. chaque dimanche su ma musaan wàcc kastoor dem këram di waxtaan yi ndax soxna si moo ñu daan keel daal. Mm-hmm. mais yàlla dogalee mu am tuuti diggante ak soxna si. Mm-hmm. tëdd ba guddi moom xam na yàllaa ko dimbali. waru woon dee. mu dégg soxna si yëngatu ci gaz bi ndeke soxna saa ngi tàngal diwlin yi pour bëgg ko. bon yàlla ni dara tawul mu am tuuti e, réflexion mu yëngatu da jóg yëkkati boppam ngir soxna si taal gaz bi jóg ni ko yow looy tàngal ci guddi gi nii gaz bi bon xamatul lu muy wax waaw mu ne ko yow laa ko bëggoon a sotti bon mu def xaaru ba xëy de ah. ko fase ci guddi gi dem jëli taxi teg ko ci yóbbu ko ci këri mbokkam ah. Ah, te kooku moo ko jural ay taam ba fii instant yi toll yi xale yi ñu ngi ci waaji xale yi ñoom ñëpp am nañ jëkkër ba amee doom mais kooku aussi dem na sëy feneen te ba léegi ñu gisante mais kooku jàbbaarte gi mu defoon noonu ak fulla yeeg fayda bi mu ah. defoon si bëggoon a dolli ma fàtte woon ko nag euh, en même temps euh, sànq bi may jaawale turam naan góor a njaga ma di ko ko jégalu te xam ni xam naa turam bu baax a baax ma fàtte woon ko naan ko góor a góor a parce que yéen loolu laa ci bëggoon dolli nag <laughs> ñu jaajëf benn jaajëf Seck xam nga xam nga moom mi ngi wax lu am solo gis nga fulla ak fayda bu njëkk daaw ñu takk jabar indi beneen jabar bala moo yàgg ñu takk keneen ngir bëggi jabar wala ñu takk pour naqaral jabar dan lay wan ni façonnaar góoree daaw la moroom ma mhm. sumbul bañee làmbaay nangu yooyu moo taxoon ñu koy def mais léegi àddina bi yàqu na dangay jur doom mu mel ni mu war a mel yàlla may ko situation mu dem takk benn jabar yem ca mu saaf suuf teg ko ca saaf suuf teg ci yaayam. Mhm. mais ku mayul jàmm jëkkër doo ko may yaayam. mënta mais mairie aussi ñu parce que dëkk ak goro neex na trop mais ci kaw mu lay jural jàmm. Mhm. ndax lii mu am war na tax kenn ku ne jaaju. billahi njaga xale yi seen xeetu ñàkk sax parce que noo mën a comprendre rek a goro ci kër heure bu la neexee nga yeew boo ko nuyu nuyu dangay taxu fee ne na nga def yenn saa sax doo ci jaar danga naan salaamaaleykum romb leen doo joxe loxo doo sukk doo maye ndox boo koy servir nu la neex ngay def mais kooku. capable na laa sotti ndox mu tàng wala mu rey la. man nag balaa càng dem ànd ak sa jëkkër bàyyi naa yàlla ma wut sama doomi xaalis am sama jàmm am sama la salaam ndax dëkk ba kat ñu den corriger la mais fa ndox daan taa ba léegi boo demee fekk fa teb teb. allo na. li ma bëgg a wax daal mooy jigéen ñi naan farlu ci yar doom yi nañu yar suñu njaboot yi nañ tal suñu njaboot yi li ma gis léegi ñu koy défendre naan jigéen am na droit lii jigéen am na droit lii émancipation dafa am connect ci ligne bi ñu jël ko te ñëwaat allo dem allo ñu ci ligne bi allo salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah ah, naa def soxna si mbaa yéen ci jàmm ñii sant bu baax alhamdulilah waaw damaa bëgg a participer ci émission bi ay ci rek la ñuy déglu seen bi neex loolu am na solo jaajëf merci beaucoup. di wax di ngeen di wax ci affaire yu sëy yëpp dëgg la. Mm-hmm. mais du kenn du ñun xale yu jigéen ñi. Mm-hmm. parce que ñun dañoo war a xam li ñu bëgg. Mm-hmm. ak li ñu bañ. te xam ne sëy yàlla moom moo ko digle. ñun dañoo war a sëy ba dee. mais sama yenn mbokk xale yu jigéen ñi tey da sëy nekk sëy di def lu baax wala ngay góorgóorlu ñu naan la. sëyul mag ngay sëy parce que man loolu daf maa dal. say morom. Mm-hmm. waaw samay morom. bu may samay morom dañ ma commencé di ma xas di ma reetaan naan ma sëyul mag ngay sëy. Mm-hmm. te man dafa bokk li may gën a kontaan loo mooy sama jëkkër toppatoo sama jëkkër toppatoo sama ay goro. Mm-hmm. ndax damay def su ma demee marché damay jënd sama goro donte sama moyen bëriwul mais damay jënd sama goro jënd sama sumplu sama goro bëgg. te maa ngi fii Dakar. Dakar laa juddoo fi laa yoroo fi laa màgg. très bien. tey jii kenn gënu maa Dakar vage. Mhm. mais dafa am loo xam ne dama kaa bëgg. Mhm. su ma ñëwee sama goro su ma jógee marché ba ñëw toog su ma nattee sama ceeb pour mu damay dugal suma goro si biir yenn saa ma dugal si sama 200 feccal sama goro bu ko defee bu ma nee waa lii nag ma ne ko boy tànn loo fekk si biir yaay borom. sama jëkkër bala moo ñëw dinaa sañ sa ba jëkk donte xale laa sama jëkkër mag la tuuti mais bala moo ñëw dinaa sañ ba jëkk mais li may kontaan mooy sama jëkkër fekk ma ma mel na ma war a mel toppatoo ko. ndeysaan. Euh, solu ba taajal ko mu añ ma may ko ndox supp defal ko attaaya loolu dafa bokk man ci li may kontaan loo man waxuma moom waxuma sama jëkkër mais man li may kontaan loo loolu. Mm-hmm. mais su ko defee damay gis sama moral yi di ma fii mag ngay seeg da ngaa yàgg ak da ngaa nangam te wóor na ma ne man la ñoom maa leen gën a nekk Dakar waaye ba ëllëg mais waaw mais dama xam ne si jigéen tamit loolu si si li yàq seen sëy yi mooy loolu parce que da ngay nekk sa sëy di def lu baax ñu lay kontu naan la da ngay def sëy mag ak sëy nàngam ak sëy nangam est-ce que loolu bokkul ci sëy mhm. ñun xale yi jigéen ñi suñuy sëy dañoo war a xam ne sëy jaamu yàlla la sa mhm. sëy sa ndax keroog dañ may muur dañ may muur sama maam ndax ma woo ñëw mu ne ma sëy boo ci nekkee fukki at ak juróom boo leblee lu baax say résultat dina commencé feeñ soo leblee lu bon say résultat dina commencé feeñ mhm. te xam naa ci dara ndax fi ne nii maa ngi gis jàmm ak avancement boo xam ne nii xam naa ne xel man maa ko liggéey ci suma sëy Mm, kon ñun xale yu jigéen ñi nañ góorgóorlu ci sëñ yi toppatoo suñu goro yi toppatoo suñu njëkk yi toppatoo suñu borom kër yi nag sur mais borom kër bu nee benn nga na ko fukk bu ñëwee du gis doo ko taajal mu lekk doo ko may ndox te teraanga passé wu kër wàcc egg si nga dugg ci biir may ko ndox sukk loolu dafa bekk si bokk si at boo xam ne nii ak toog rafet na sa boroom kër bu la ko waxee ak bu la ko xolam sedd mhm. kon ñun xale yu jigéen ñi nañ góorgóorlu si suñu sëy mhm. tax mhm. te xam ne loo ji rek moom ngay moom ngay moom ngay góor maa ngi maa ngi baax di kontaan seen émission bi leen di suivre seen benn émission du ma rëcc jaajëf maa ngi kontaan bu baax jërëjëf dëgg la gis nga dafa joxe yoonu sëy rek li ma koy dolli rek mooy leçon sëy rek comme am na fu takk ndigam di sëy di def lu baax na am faratay kenn bañ koo découragé. Mhm. Ah, dama daan dégg déglu leen dama ni ko dama ni ba ëllëg. départ bi ci la toll waaye bu arrivé ba jotee rek. ñi doon wax loolu nee na daf ko ni kuy sëy ba am fukki at juróom ci béréb. assi ah, nee nañu gis ah. lii feeñ. ñu jël ko mujj wala ñu ñu jël ko mujj kon alors maam aje allo allo allo. allo. allo oui. allo salaamaaleykum. aleykum salaam wa soxna si ñu ngi. ñoo ngi lay fay bu baax. dama bëggoon participer ci émission bi. yow la ñuy déglu. waa dama doon euh, di leen sant nag ci émission bi rafet na lool. jaajëf di wax ne la woon lu woon ni ba mukk. mukk ci àdduna. soxna soosu toog noonu. sol lu mhm. vert li. Hmm. tata ku duggoon këram tey jii. Mhm. ñaan fa soxna. Mhm. du nëbb ci kolam ay saafara di la ko indil. Mm. déedéet. moom ku ñëw ci saal ba léegi. ñu koy rafet na. Mm-hmm. Mm-hmm. waa jooju toog noonu. Mm-hmm. ku demoon ci moom di ko laaj kër gooy takkee soxna. dina la dugal ci kër gu baax. waaye Sénégal li xëy ji boo duggee ci kër ni ana borom kër gi. lu ñuy wax sama yaay ngi ci biir pourtant borom kër gi mi ngi dund de ma nga ci pantere ba. parce que borom kër gi retraité na. Mm-hmm. doom yi màgg nañ. Mm-hmm. ci seen yaay lañu far. Mm-hmm. waaw seen yaay mooy dindi. xool ko ci Europe rek. Europe tey jii boo ko xoolee daanaka. ñii ñëw di faju si yëpp yaay yi la bàyyi ñëwul de. parce que yaay dox na ci diggante doom ak baay. naan ko seen bàyyi nii seen bàyyi nii ba ñuy indi seen bàyyi day feebar ba sonn mais duñ ko indi mukk mu faju yaay rek. Hmm. lay dëgg la. mu nekk lu ñaaw. paa mm-hmm. yu bari yàlla boo takk beneen soxna nag sa nekk mag. Mm-hmm. say doom ba banañ la. yaay day topp di wax. seen bàyyi nii seen bàyyi nii ba seen ñu ber la ci ruq ba. Mm-hmm. loolu lañu war a bàyyi looloo tax doom yi di fay tey jii lu bon li seen yaay doon. ñu di ko fay. wax nga lu yéeme góor delloo si waat xel yi. xam ni yàlla am na di wax wax ju rafet di génne lu rafet ci doom yi ak baay yi Sénégal dañoo beddi baay yi teg leen fële loo wax la ñu ni yaay ndey walaay dëgg la waykat yi sax seen yaay la ñuy way waykat yi seen yaay la ñuy way duñu way seen baay yi mhm. waaw mbër yi seen yaay lañuy ñuy teeral walaay dëgg la nañ bàyyi teg ko fële kër yu bari dugg fa tey ji Sénégal boo nee ana borom kër gi rek sama yaay nga ci biir mère bàyyi solu ba rafet mbasin yu rafet di kollu du teg ci fauteuil ba papa ja ma nga ca pantere ba rek oh. te pourtant day dund de moo liggéeyoon démb tey soog a ñëw. wallaay wallaay wallaay. Eh. waaw moo liggéeyoon démb tey soog a ñëw. waaye na wala mu takk beneen soxna rek beddi nañ ko. Mm-hmm. waaw ngeen baal ma nag ci wax ji. macha allah ngeen baal ngeen bu baax. macha allah jërë ngeen jëf. jërëjëf. jaajëf yaa xam nga lu may tëjee ci mm-hmm. waa ji wax. Mm-hmm. may ñaanal sama goro bi El Hadj Assane Mbaye yal na yàlla yokk leeram. amiin njage sama goro bi daf ni. Mm. doom bu ànd ak ndeyam di xeexi baayam dëkk bu mu jëm dana seen làmp waaye du fa àgg. du yegg wallaay dëgg la nee na doom bu ànd ak ndeyam. te di xeex baayam. Mhm. dëkk bu mu jëm dana seen làmp waaye du fa àgg. wallaay dëgg la ndey du morom. mukk ci morom baay nag mooy joxe barke. Mhm. dafa am loo xam ne su ko ndey bëggee moo koy sàkku doom ca baayam. Mhm. loolu soo ko gisee yaay jàkku tere. dëgg la waaye ndey ju baax juy sëykat. doomam ci baayam la koy xirtal. wallaay dëgg soo amee benn mën ko joxal sa baay. dëgg la. su lu mu ko demal wax ak sa baay buy tàggu mun ko waxal ak sa baay loolu moo am solo. te xale yi nañu xam ne li goroy daj ba doom tekki ba mën a jël jabar indi ko ci kër gi hmm. nañu ñaan yàlla ba na daj loolu am lu gën li goro bi am loolu nag jeeg buy sëy yaa koy fàkku lu am jaari waxoon rek hmm. ni yonent jeex na waaye su jeexul woon fa ma jëm ma yeggee dama fay jur yonent sa fekk na fa ay nawle ku nekk yaa sa doom foofu la ñu daal di euh, jaaree ndar kepp émission bi di leen jaajëfal yéen ñëpp ci ànd bi ak ñun euh, bu subaa incha dañuy wéyal thème bi émission euh, téléphone bi nag mi ngi explosé ci ci ci régie bi waaye nag di wax ni waxtu yu ñu mayoon moo daal di jeex suba incha allah ñu leen di jox dig daje ci seen benn émission waxtaane ko su ko defee daañu mën a ubbi téléphone bi ñun ñëpp une fois di gërëm sama rakk ju baax ji Assane Fall borom global textile nekk ci côté sapeur camp sapeur unité 17 boo ko avancé tuuti mel ni ku jëm sa moo jaar ci tissu bi tey di ko jaajëfal bu baax a baax bu Cheikh Mouhamed Fall damay wax ni saa su nañoo bokk bàyyi moo tax it euh, jugul loxom jugul benn yoon ci man Assane maa ngi lay jaajëfal Global Textile ku bëgg nag tissu bi ak yeneen façon yu bari da ngay woote ci 78 193 35 35 colonel Sabouri Ndiaye Sabouri Ndiaye daf ñuy suivre tout le temps tout le temps euh, boo paree rek retour bi day ñëw ci moom wax dëgg yàlla colonel Sabouri Ndiaye DG bu Descos ñu ngi lay nuyu bu baax a baax moom colonel di la jaajëfal ndax itam euh, wax dëgg yàlla nemmeeku geeg woote geeg texto yi day daal di jox saa su nekk ñu ngi lay euh, nuyu bu baax a baax di la jaajëfal bu wér ci ànd beeg ñun kilifa yi ñuy suivre bari nañ ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaye Assane Fall beral naa la nuyoo yow tamit ba suba incha allah seen benn كلا برد من